xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa xasaayidi min mujizati lmuntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haajat xasaayidi qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman bokk yi ba tey ñu ngi desandi ak yéen fii ci tubaa ci kër Serigne tubaa gi ci bisub xasida bu màgg bi nga xam ne ni Serigne Mountakha moo ko digle rey ren ji doon ñetteelu édition bi fii ci résidence Khadim Rassoul xam ngeen ne ay sites yu bëree bëri ñu ngi fi di ko dundal fi ñu taxaw nag mooy bërëb bi lëkkale mbooleem daayira kuréelkat yi nekk ci Touba ñu tudd mooy bu naafeex Serigne Madiame Thioub Serigne Mathiam Thioub ginnaaw nuyooyu ak ziar yi ak ndokkeel yi yéen a ngi daje fii ngir jëfe ndigal boo ñu bëgg a xamale ak mbooloo mi fi daje ñen la ak taxawaay bi ci bis bi lan nga ñuy baaxee. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare mu mel ne comme ni ñu ko xamee rek li ñu fi dajale tey mooy liggéey bi nga xam ne ci ndigalu Serigne Muxtaar Mbàkke Serigne euh, Muntaxa moom moo ko digle di bisub xasida boo xam ne dañ koy amal comme ni nga ko waxee nag fii jataay bi kuréel yi nga xam ne kuréel yi nga xam ne moom moo lëkkale mboolem kuréel yi nekk ci biir Touba ak li ko wër te sëriñ bi tuddee woon leen Mawahibou Nafih ñoom ñoo fi nekk ñi njiital sëriñ Cheikh Dieng ak sëriñ Salihou Lo ñu nekk fii di taxaw taxaw liggéey bi euh, depuis daaw ak nga xam ne bu bu njëkk ba nga xam ne ci biir jumaa ji la ay woon waaye daaw ak lañ ko tàmbali ko saxal fii ci bërëb bi nga xam ne moom mooy résidence Cheikhoul Khadim euh, ni ñu koy defee itam mooy suñu xasee julli fajar gi dañu daal taxaw di jàng ba tàkkusaan gi jàll sëriñ bi daal di ñaan ñu daal di yeeweeku ba beneen yoon incha allahu rabbi noonu daal lañ ko defee woon daaw te noonu lañ ko fas yéenee defaree ren incha allah rabbi jàng ak ñi nga xam ne ñoom ñooy duruskat yi maanaam kuréel yi yëkkati ak njàngum durus mi lañ ko def incha allah ko dundeel noonu. mu mel ni itam li jiitu bis bi amoon na ay tënk yoo xam ne nii kuréel gi saytu loolu muy commission culturelle ñu ngi ko doon wax jëmale ko ci njàng mi njàngeen wi toogin yi ak organisation bi loolu mel na ni itam yéen a ciy bàyyi xel bu baax a baax. waaw waaw ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax loolu itam dafa am solo ndax xasida ak béréb bii dafa am lu mu laaj bërëb bi ci wax dafa am ay teggin yoo xam ne moom la laaj xasida yi tamit ak ak jëmmi bis am ay teggin yoo xam ne moom la laaj njàng mi dañ ciy taxaw bu baax a baax a baax xasida yi am na solo waaye njàngin bi njàngin bi dafa am solo moo tax njàngin woowu itam mboolem kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ñëpp dañ danañ waxtaan ak ñoom laataa ñuy ñëw tey nga xam ne dañ leen wax yan daaj yan xeeti daaj ak yan xeeti daaj yin lañ fi lañ fi gën a taamu doonte daaj yëpp baax waaye dafa am daaj yoo xam ne xëy na moom moo gën a méngoo ak béréb bi yooyu lañ gën a sàkku ci nit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo toog di déglu tamit ak di durus am yoo xam ne si moom lañu moom lañu sàkku ci ñoom euh, li njiitu mooy xeeti yi li nga xam ne moom seen ay dàll ak ñoom seen danañ ko ber ci benn bërëb boo xam ne si ne dara luy taqal lu fi nekk ak mboolem lépp lu ñu jëfandikoo dañ ba dara du taq dara fi salte waaye ci biir jotaay bi tam ni ñu fiy dafa am ni ñu fiy boo ñëwee tam ngay déglu euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy durus di durus ci ndànk ñi nga xam ne ñoom ñooy yëkkati yëkkati ñeneen ñi di déglu loolu lañ fi wax nga xam ne wax jeeg yenn waxtaaneeg ñoom seen yooyu yëpp moom maanaam bu ñu ko sàkku ci fii nga xam ne moom mooy béréb liggéey bi sëriñ Touba xam naa fi ñuy jeexale mooy euh, ñette at a ngi nii wala ñetteelu yoon sëriñ bi digle ndigal li mbooleem murit yi ànd ci kon mel na ni sëriñ bi am na joxoñ akub junj ak bëgg-bëgg boo xam ne nii bëgg na ko ci murit yi muy àndandoo di liggéey ci toolu sëriñ Touba bi nga xam ne nii benn tool kese la loolu itam ban jàngat ak ban soññee nga ciy jox mbokki taalibe yi ñuy seetaan fii ci réew mi ak bitim réew loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko njëkk a digal ab jullit yëpp rek waaw tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kon booloo ak ak bennoo gi suñu borom moom moo ko njëkk a digal mbooleem kuy ab julit waaye sëriñ bi bi mu ñëwee woote ci biir woote bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam daal di dajalewaat beneen mbooloo moo xam ne dafa woote waat ñoom ñëpp ñu booloo njàngum xasida ak kuréel bii nga xam ne moom la sëriñ bi woote boo xoolee yëfi mbooloo la kuréel moom mu ñu ko waxee rek muy am mbooloo mu dajaloo nasoo di jàngaloo benn daaj bi di ko yëkkateendoo di ko wàcceendoondoo loolu rek day doy sëkk ci am mbooloo kon loolu moom mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi mas a woote itam ñëpp ñoo xam ne moom moo nekk ci béréb bii ak ñi nekkul ci béréb bii loolu ci lool la lañ nekk boo xoolee itam mboolem kuréel yi nekk fii dañ naan la moo wax yi mooy mooy kuréel yi nekk Touba ak li ko wër waaye am na yeneen kuréel yu fi jàng yoo xam ne ñii dañu jóge Thiès ñu jóge Dakar ñu jóge ci yeneen béréb yu ko ba ci bitim réew am na kër yoo xam ne ñu fa jógee di ñëw moo xam ci biir jumaa ji la moo xam ci résidence yoo xam ne bii ñu nekk la mbooleem kuréel ci biir adduna fu kuréel nekk da ngay ñëw teew ci bis bi ñu àndoo di ko liggéeyal Serigne Touba ba ba muy jeex incha allahu rabbi jërëjëf jërëjëf Serigne Mathiam Thioub doon wax eh, ci turu kuréel gi nga xam ne ñooy taxaw site bi muy mooy bu naafix di kuréel gi nga xam ne ni moo lëkkale mbooleem kuréelu xasida yi nekk biir Touba ak li ko wër yaakaar naa ne ni ko waxee ci organisation bi ak taxawaay bi lépp rek dafa tàbbi ci ndigalu sëriñ bi waaye ci bëggu-bëggu commission culturelle bi nga xam ne mu ngi aju ci comité de pilotage bi waaye wax na itam ci bennoo gi sellal gi ak lépp yàlla nañ ci daje ak ngërëmal sëriñ bi di leen jox dox daje ci beneen bërëb boo xam ne ni fii ci Touba la ci jumaay ji ak li ko wër